julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanul ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ñoo ngi dellusi ci sunu tomb bi démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi tolloon ci ngoro di wéet ak ka ngay ngoro ngoro di wéet ak ka ngay ngoro wéetaay wa sallallahu alayhi mi yàlla yónni woon daf koo xaraamal jaabir radiallahu anhu moo nuy nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam nee na mu di sunu kilifa googu nga xam ne kilifa yépp ñoo ko war a déglu waaw parents yi ñoom ñépp a ko war a déglu kilifa gi wax ak ñoom waaw ndeysaan def benn déclaration te it kilifa daana def loolu def déclaration jëme ci njaboot gi dafa wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falaa yaxluwanna bi imraatin laysa maaha du mahram minha fa inna thalithahuma shaytaan alayhi salaatu salaam nee na képp koo xam ne kii gëm nga yàlla te gëm àllaaxira ne rikkwaay bul di wéet ak jigéen lu dul dafa nekk ak maxramam magam ju góor walla rakkam ju góor walla baayam mbaa najaayam ñu ne ko yaa Rasulullaay lu tax mu ne ndaxte su fekkee ñoom ñaar dong nga wéet am na ku leen di ñetteel ku ñu wax seytaane seytaane ñëwee dana wax ak ko jigéen ki dana wax ko góor ki te moom ci ci ci deret ji dugg buy wax moom seytaane ak ca xel ma amir ibnu rabia radiallahu anhu moom tam wax ne yonente ba nee na laa yaxluwan rajulun bi imraatin laa yaxilu la fa inna xaalisahuma cheytaan illa mahram aw kama xaala oustaz Cheikh Tandian rawaahu rawaahuma ahmad kon loolu li ci yonente bi tere mooy kuy ngoro di wéet ak ki ngay ngoro wala ki ngoro ngay wéet ak moom waaw kon bu ko parents yi déggee jàppale ci yonent bi buñ ko ci jàppalee daañ ci jàppale ku góor gi bañ a yàggal ngoro gi waaw danay faral di nett li génn góor guñ dëkkandoon ca Mbàkke waaw tabarkal mu wàcc si rek ñu fekk ci néeg bi làmp baa ngay tàkk te tàmmuñu ne ci kuur bi di reer làmp yi di tàkk mu am kum yebal ne ko demal fay làmp bee ca néeg bee ni ko boroom kër ji defe waaw kër gi ñëpp na cel mu ne diw demal fay làmp bale kooka ne ko daa am daa am ñu fa nekk mu ne ñu fa nekk ñëpp yi nakk-nakkal ndax moom këram ñaari moom tam nu la doon def nu la ko daan sàmmee mu jógal boppam mu jógal boppam waaxu ba ci néeg ba fekk fa ku góor ku toog calal bee doomam toog calal bee ñu jàkkaarloo di waxtaan mu nuyu leen nuyu bu nuyu bi rek ànd ak sagoom kañ nga fi ñëw nangam nangam waxtaan ak moom lu doon say tànk mu ne ko soxna laa bëgg mu ne ko te kii nga toogal ci nii bi nga bëgg mu ne ko waaw góor ga génn taal otom ñu def ne fu nu la jëm ndek ca kilifaam la jëm ne ko sama doom ju jigéen daa am ko fa nekk diw la tudd gura gaa ngi nii mayal ma ko ko <laughs> seetetet bi bu ñëwee fekk na kee ñibbi waaye mu yëgal ko ne ko daal am nga fi jabar bu subaa ba la neexee nga ñëw mu jeex tàkk ñu naan kii almaalaak warutoon a def noonu nangam ki nangam xamul mu ne ah moom kay moom ginnaaw daa bëgg dañ koy may rek bu bëggul mu toog këram waaw tubaarkàlla yàlla na ko yàlla yërëm dafa génn àdduna góor googu mu nga wax loolu la yonent bi bëgg ci njaboot ci ci ci ci ci ci parents yi waxtaan ceeg ñoom te sunu penc mi ni ñu mel ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci wàllu wax buñ ko melee ci wàllu jëf dimbale ko ci yu bari waaw daayira yi moom lañ ko tudde association yi moom lañ ko tudde fan si moom lañ ko tudde oto yi ba romb ña nga ci bind sopp nabi tabarkàlla moom daal rekk léegi nag mooy wax ak nun ci pénc mi moom moo nu sopp nga xam ne ku lay wax dafa caa bëgg ku lay wax daa bëgg aji màkk sax lu neex ne ziyaara ji rasulullah yi fi boo bettoon bi ak al asandir male ne ko kaay dem màkk mu xëm penc mi yëpp noonu lañ mel ci yonent bi waaye mel googu nag dafa am yu muy santaane ci penc mi nga xam ne bu ëllëgee yooyu yëf yi parce que dem ci sunu cours ba la ci liberté de 1537 ñoom alfa dañ caa toll ci hadis buy wax ña nga xam ne bu yowmal xiyaamee bu ñu sampee tirbin ya buñ sampee tribune ya tribune officielle ca ngay toog waaw ngi defe naa seetaan ngeen bërki démb bi bi Gambie di feete eh, indépendance am gis ngeen na tribune ya bare waaye am na ca tribune boo xam ne bi ca la président ba di toog ak ay ganam yow mal xiyaam yonent bi dafa am tribune boo xam ne tribune officielle tribune officielle a professeur Djibi boo xam ne ci la yonent bay nekk ak ay gaayam waaw ñi nga xam ne ñoo am invitation de ay yàlla ñu ko am waaye buñ ne ñu ko jàpp rek nu xam maag yaay Maodo yéen cey ñu ne ko kan mooy toog tribune officielle a mu ne ku ku rafet ay jikko te néewi wax moom daal ku ne lañ defoon moom la yonent bi wax ñu imité ko ko moom mu ne ku rafeti jikko ti néewi wax la soxla ca tirbin ba ndeysaan ma wax ko rek monsieur alfa xëm xam nga moom <laughs> walaay ndeysaan alfa xëm kuur ba yàqu waaw yonent bi nee na yomal xiyaam ñi koy gën a jege toog tribune officielle a toog ca wetam bokk ak moom tribune mu ne ah, mu ne mooy képp koo xam ne ki dangaa rafet ay jikko ti néewi wax kon nag yonent baa ngi tere mi ngi tere wéetaay woowu na ko ci parents yi jàppale bu ñëwee bëgg seen doom ñu teel ko koo may ñu teel ko koo may waaye tabarkala lu la ñuy wax day jàng ak du sa naw leeg nangam ki nangam ba mu yàgg rekk ñu dégg ne ah ndaw sa kat war na law lor kenn ku ne di wax ak a coow ak di ko xas dëgg la jar naa xas waaye parent yi fi ne xas wi ñuy xas ku jigéen ki xas woowu lañ leen di xas ñoom tam te boo lëgee bu yàlla yàllay duma xale bu jigéen bi duma xale bu góor bi bu gestoo dana duma bàyyi bàyyi xale bi dana duma yaayam ñeent ñëpp lay boole duma wax la ko tey wala tukrihu fatiyaatikum alal bighaayi in na tahassunan waaw sunu borom nee na kum neexoon sa doom du jaar foofu waaw comme neexoon sa doom du jaar foofu waaw mu jox tàkk eh, am na ci ñooñ nag loolu ba waxee ñu ne def du problème ah xale yi mën su ci dara nangam nangam waaye taxawun googu ñuy def te mooy ñàkkal solo mbir moomu te alayhi salaam mu jaral ko mu àddu ca te lom xas àddu rek ñàkkatul solo sala alayka laahu ya alamal huda lom xas àddu rek ñàkkatul solo moo tax yóne di ca xew waaw yàlla nu yàlla dimbale ba sunum penc set ci yooyu professeur ma ñëw ci beneen tomb muy ngoro bam yàgg nga bàyyi ngoro bam yàgg nga bàyyi wala ngoro bam yàgg ndaw sa bàyyi eh, ngoro léeg-léeg ñu fas ko dem ba mu yàgg ñu joxe can joxe can nga lépp mbaa ñu joxe leen walla ngay maye ay kàddu ay téléphone ak portable ak yu ne nga dugg ca ngir bëgg euh, ngoro gi gën a dëgër waaw ngir bëgg ngoro gi gën a dëgër ndax góor gu nay ku ngoroonteeg moom ku gorooleeg moom tabarkalla màtt sa baaraam nay ci boppam moo baaxul rawatina nag ñu baal ma ci baat may bëgg wax farwu nay <laughs> farwu nay jëkkër ju nay kilifa gu nay hmm? yonent bi nee na ko ngeen seen mu nay yëg leen na ca duma yàlla yi la jëm waaw mu ngi ciy suuratu layli xëy na dañ ca mas àgg ci tafsir insha allah ca ci jamono yu ñu jëm suuratu layli inna sa'yakum ñu ne ha mu ne la shatta inna sa'yakum seen jëf su ngeen amee alal la shatta jëf yu wuute la kii day am alal a'ta wa taqa kee am alal baxila wastaxna ñii ñaar doo fi nekk waaye a'ta wa mu ne fasan yasru lil lil yusra baxila wastaxna fasan yasru lil usra rekk tabarkàlla saar wu am solo la moom saar wu suratul layli waaye yooyu ñu jox ku jigéen ah, ginnaaw bi baay ji ne danaa la ko may yaay ji ne danaa la ko may ku jigéen ki d'accord yooyu nga koy may tabarkàlla mën naa tax eh, mu gën a sawar ca lam nekk waaw <laughs> mën naa tax yooyu bu fekkee dangay ngoro di nuyoo ji nuyoo ji bi rek mën nañ la cee dàqe mën nañ la cee jàppe hmm? su ko defee léeg-léeg nag loolu ñu doon def yàqu mu ndax dag naan ko delloo ma la ma la joxoon mu ndax dag naan ko delloo ma sama portable bi ma la mayoon ak yu la demee yooyu bëgguñu ko yooyu bëgguñu ko waaye daal ñoom ñaar ku ci nekk waajur wi bëgg a maye ak ku góor ki ñu bëgg a may nan yëg na yonent bi neen aayatul munaafiqi salaasa màndargay naafiq ñett la naafiq mooy koo xam ne isaa haddasa kadaba naafiq ne isaa waada axlafa naafiq mooy xam mooy koo xam ne isaa tumina xaana waaw mu ngoog naafiq su waxtaanee fen naafiq su duggee wor naafiq suñ ko suñ ko dénkee mu lekk wallaay ndeysaan Abdullah ibnu Omar kenn la ci saxaaba yi Omar ibnu Xattaab mooy waajuram bu góor keroog ba mu nekkee hôpital ca ba keroog ba mu nekkee hôpital ca feebar ba moom Abdullahi mu ne unzuru fulaanan dem leen li ma diw daal di koy tudd jenn waaye la ju bokk ci Quraysh mu ne dem leen ngeen seetali ma ko mi ngi ci hôpital bi mi ngi ci daanaka mën nga ne ci feebaru xar mi ngi ci sukuraat mu ne dem leen seetali ma diw fa inni xultu lahu fibnati xawlan hmm? waaw mu ne dem leen seetali ma ko ndax waxoon naa ko ay wax ci sama doom ju jigéen diw te bëgguma dajeeg yàlla di am un cœur un tiers de nafiq ginnaaw nafiq bi ne ñett la mu naa mu ne mu ne bëgguma dajeeg yàlla am ci benn benn bi mooy lan ci lim ko jàppe nee na mooy dig ko sama doom ji ba noppi mayuma ko mayuma ko ko mu ne wa ushhidukum anni qad zawwajtuhu yëg leen ne may naa ko ko ah bon waaw fi tëdd ci lal bi mu ne yëg leen ne may naa ko ko allahu akbar yëg leen ne may naa ko ko mu jox tàkk cetttët yëg leen ne may naa ko ko ba dema ca taskiratul xufaaz ca la addis boobu nekk mu ngoog su ko defee kàddu yeeg can yeeg yooyu su fekkee daa ñëw ginnaaw bi la parent bi nangulee ca ngoro ga lay dugg bu fekkee daa ñëw avant kenn nangulu la yaay yaay sànq yaay yaay sa alal am am saax nga waaw mu nga lu ama am solo la tabaarakallaahu ci wàllu woowu kon ñii ngoro ñu bàyyi ci xel ñii ngoro seen doom ñu bàyyi ci xel waaw mu nga ci maye kado may luñ la ñaanut am na ñoo xam ne dañuy jëndug nobel waaw jëndug nobel ñëw ñu ndaw si bëggut yaayam naa la dana bëgg day goneek day def nangam ki nangam ngay joxe rek ndeysaan ba ne may nañ ko Mor Khoudia <laughs> ndeysaan ngoog bu ñu del labat euh, ci lislaam asu mariage maanaam day am dix-huit ans ñu door laa may suñu yëfi boppa gone gi day am 18 ans ñu war ko sañ a wala day am 16 ans ñu war ko sañ a maye loolu sunu yëfi boppa pincum laayen kaccat leen ca waaw gone gone bu amee juróom benn at lu mu ca tege ñu man koo maye pencum laayeen moom duñ ca àgg ba àgg juróom benn at moo taxit tabarkàlla ñoom Cheikh Baytir Laay yàlla yàlla sàmm ko teg yokk ko wér si nga jigéen tuutaay ba yàqu ko màggataay ga yàqu ko ci dundu yàlla yónni woon ci noonu tey li tubaab bi tuddee mariage précoce bu duggee kër yonent bi xanaa ñi mënu ko ko firee laa yaakaar li ñu tuddee pédophilie kazalika denc na soxna ci juróom benni at loolu tam léeg-léeg nga wax ko mu ñàkk jubu nit ci am xelam mu bëgg indi yeneen théorie dund ak yonent salaam nañ ci bañ a dugal suñu théorie waa waaja def ne tayran abaabila tarmihim bi hijaara hijaara yooyu mu bëgg koo théorie théorie nit ñi bañ dégg ko tax mu indi ko naan ay microbe la microbe mën naa dal nit tey rey ko tey kon moom théorie théorie boobu doxut mukk ci wàllu aasu aasu sëy la yàlla ka yàlla yónni woon wutalu ko âge ndax jigéen bu jud juy dooru judd liir bi do yaayam di ko boot dégg seen na irando barki de mu ciy jàngale ci nga xam ne day ngemb doom ji boot ko ci wàllu sobe si buy julli gone gu jigéen googu bu sawee yaayam bukkute gone góor gi bu sawee yaayam ku jigéen ki bu sawee xam nañ ne ah, wis doyu ca dañ koy xay ku góor ki ba ñu wisee mu jeex lu tax parce que gone gu jigéen ngi saw ak mag mi sorewuñu nañ ma baal ci kàddu gi benn bee ndax li li def lee sobe laaj doon ko ñoom professeur Moussa Gaye noonu la ko nit bi jàngale ñiy gëstu xam nañu loolu waaw jëntukaayu gone gu jigéen ak jëntukaayu gone gu góor ci wàllu am doom ak yu nu demee waaw bëri na yu ñuy sabantal ci penc mi jàpp ne gone gu jigéen nangam nangam ndekete gone gu jigéen du gone mag mu ndaw la gone gu jigéen du gone mag mu ndaw la waaw comme mag mu ndaw la nag fagaru bu baax a baax moo ci am solo ala kulli xaal yonent bi denc ci juróom benn at te ku ko defoon fi moytu ñu woo la ñu xas la dugal la ci kasu bi ndekete yoo yaa ngi ca sunna sa ndekete yoo yaa ngi ca sunna sa waaw di topp sunna ba dugg ca kaso ba teet <laughs> teet ndaw bari tuyaaba waaw di topp sunna ba dugg ca kaso ba waaw topp sunna rek topp sunna topp sunna ba dugg ca kaso ba waaw waaw am nga mérite ndaw coow <clears throat> ala kulli xaal âge boobu amul yonent bi denc na suñu yaay Aïcha aka gone mu denc meneen mag ca mag ya kii ci juróom-benn lay toll kële ci juróom-benn fukki ñaar yëpp alxuraan wax na ko surtout mu jaadu la yàlla nañ ci àgg ak tafsir ma ñëw ci beneen tomb professeur mooy léegi ñu ngi toll ci aqdu ziwaaj takk sëy bi ñu ngi toll ci takk sëy bi ah waaw takk sëy bi mooy ruknu bu fondamental bi nga xam ne wala ñu bëgg a def waaye dafa war a am fay tarafayni ku góor ki ñuy may ku jigéen ki ñuy maye euh, loolu di cee war a am wa tawaafuq iradatihimaa fi irtibaat ñoom ñaar ñëpp ñu d'accord ci ñu maye leen tey ku jigéen ki bëgg nga mu ne waaw ku góor ki bëgg nga mu ne waaw waaw su dee ci sunu mag ñi nag ñu ne demal nuy ji diw luy loolu ndax mu yëg ne bëgg ngeen allahu akbar waaw demal nuy ji diw <laughs> waaw bu dee mbokki am yi ñun la demal demal jurub waaw nga dem jurub nuyoo ji boo agsee ñun la demal eh, ñaaxar <laughs> nga dem ñaaxar nuyoo ji waaw ko defee ñi ngay nuyu li ci wolof jublu woon wala li ci suñu culture réew jublu woon mooy ñoom tam ñu xam ne diw bëgg na ndax ku bëggut nit doo ko wan say bokk waaw bu tax xale bu góor bi ñëw ci kër gi te boo na kaay nuyu sama papa mu lànk bëggu de day wax rek kaay nuyu sama yaay mu lànk moom it bëggut day wax rek ku bëgg nit xa jéem a xam ay bokkam <laughs> ma wax la ko tey waaw si di Cheikh ba noppi ne ma la ko tey tabarkàlla yàlla na ko yàlla yokk wér mook daayratul mustarshidina wal mustarshidateeg ak Cheikh Mouhamadul Moustapha kenn mësu koo gis rek Hmm? suñ ca dëppoo ñoom ñaar ku góor ki bëgg na ku jigéen ki bëgg na mbokki ku góor ki mbokki ku jigéen ki tabarkalla hmm? su ko defee loolu mbirum fas sëy bi day daal di tàmbalee tege ci yoon eh, su ko defee ponk ya mooy al ijaab ak al xabul waaw ijaab mooy nangu xabul it kadalik waaw maanaam nangu nañu sëy bii am diggante diw ak diw loolu tamit dañ koy def ci sunu jàkka yi tribunal la ñëw leen ma validé ko nga fase sa kër tribunal ne kontut ndax validé wu ko waaw te idday tribunal léeg-léeg mu mat ñaari at mbaa mu ëpp ko te idda ñetti reegal rekk la woon ma nga ca kanam moom tam ci wàllu yooyu waaw ilimaan yi takk sëy yi ci jàkk yi te génn ca loolu adduna jiy tukki la ab sëy bi nga ko takkee waru caa génne sa loxo waaye daal yaa takk sëy bi ci jàkk ji bon wasalaam déedéet bi nga tekkee sëy bi ci jàkk ji dafa bokk ci rôlu jàkk muy topp sëy boobu bu ca doom juddoo ci rôlu ci dafa bokk ci rôlu jàkka ah, mu déclarer sëy boobu maanaam doom jooju bëri na doom yuy judd fi nekk nii examen jot te am ñuy këyit rôlu imam ci lim war na doxal ci jàkk ji looloo duxut nit ñi jàpp ne loolu dara waaye ginnaaw bi ñuy takkante ci moom lañ ñëw ñu bind ay këyit yëg leen diw takk may nañ ko diw waaw day fàttu Dramé may nañ ko Omar Omar Ngom <laughs> kon ñoom dafay di topp rek tabarakallah mbokk yi teg leen seen baaram foofu de bu leen fàtte tomb boobu suñu dundee ba ëllëg yàlla ñu dund ba ëllëg te weesu ko ci la ñuy del si incha allah dañoo ak fi war a yëkkatee jotaay bi bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 ñu ànd boobu di am lundi ak mardi di tàmbali 8h jeex 10h sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñoo nekk nii taxaw yoon seen i kayit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii di sànni wax ji ci jaww ji ba ngeen mën koo jot ci biir réew mi ak bitim réew ci biir net beeg yu demee ni ki yooyu ak suñu sponsor bi nga xam ne tubaarkalla fi ne yaakaar naa ne su ma bàyyi woon tuddatuma ko sax mokkal ngeen ko muy C3S fu ngeen xëyee daal wuti leen foofa ak yi ngeen soxla ci ñoom ndax xumaag daal di xew yi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara yal na leen coxtaan ma du seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi